mbokk internetu euh, Dakaractu yi ñu ngi leen di nuyu encore une fois ñu ñëwaat fi nga xamante ni euh, moom di euh, Kër masaar ngir wan leen Eh, yenn ci ay melokanu eh, dekk bi eh, ci période bi nga xamanteni ñepp ngi fatu seen biir kër yi ñepp ngi duggu daal di fi nga xamanteni mom modi seen biir kër yi ci seen biir njabot ngir respecter li nga xamanteni mom modi tektal di ak diglé yi nga xamanteni autorité yi jël nañ ko à travers l'état d'urgence bi nga xamanteni aussi dem na ba jurli di cour fa fi nak buñu xolé ñi nga xamanteni actuellement ñom ñoo nek sur place mom moy les forces de l'ordre notamment ñi nga xamante ni ñoom les gendarmes euh, ñoo fi euh, sillonné euh, daal di fi fees quelques militaires yoo xamante aussi ñu ngi ci seen wet di leen jàppale ci liggéey bi nga lu yomb mu aussi dafa yaatu ndax bu ñu euh, li nga xamante ni le respect euh, des gestes barrières ñom dañ ci veiller di veiller également ci li nga xamante mom modi circulation auto euh, yi yi dem ak di ñew dañ ci veiller également ak ñi nga xamante aussi des fois ñu gis leen ñu nekk ci situation yu irrégulière yu melni ni ñàkk respecté li nga xamante mom modi couvre-feu boobule donc gendarme yi vraiment déployé nañ fi ay dispositif yu ama am solo yo xamante ngir sam li nga xamante mom modi karangé gi

Euh, daal di feeñal li nga xamante ni tey euh, moom la sénégalais yu bëri umpale gis ngeen euh, gendarme boobu tamit mu ngi noonu di wax ak kenn ci chauffeur yi nga xamante ni tamit voilà daal di nañu guddee kii moom defe naa benn séeréer la kilifa gi ñu ngi lay ziar <laughs> waaw defe naa moom bokk na ci ñi nga xamante ni aussi xaw nañ guddee tuuti ci àll bi. voilà yéen a ngi gis euh, kenn ci gendarme yi mu ngi noonu taxaw daal di euh, yor ngànnaayam daal di euh, taxaw taxawaayu vraiment taxawaay boo xamante ni tey pour wane nii rek ñoom ñu ngi ci ay disposition wu gérer fi nga xamante ni moom moo di bërëb bi ñu nekk voilà donc ñu ngi noonu yéen a ngi leen di gis du liggéey bu yomb nag ndax doon na loo xam ne tey dina tax gaa nga mën a xool euh, ñi nga xam ñoom ñooy sénégalais yi ba xam conformé wu nañ ci règle yem déet waaye tamit dina gën a tax nit ñi xam ni euh, lii nga xamante ni moom moo di état d'urgence du doon mbir moo xamante ni euh, mbiru caaxaan la donc gis ngeen gendarme yi ñu ngi noon gis ngeen ñooñu ay militaire lañ donc toujours ci dispositif bi ñu déployé fii nga xamante ni moom moo di rond point Kër masaar nga xamante ni Carrefour la day dajale nit ñu bëri donc defe naa Euh, du doon euh, liggéey boo xamante ni liggéey bu yomb la voilà euh, Cheikh Omar sedd bi métti na trop waaye dañuy def le tout ngir <laughs> jox sénégalais yi li nga xamante ni moom moo di le maximum d'information par rapport à la situation bi nga xamante ni ñu ngi koy traversé depuis quelques jours muy couvre-feu bi voilà beneen oto mi noonu ñu intercepté ko daal di koy téye ngir peut-être xool voilà kooku mom dafa melni euh, carte bi permettre nako mu circuler ndax euh, buñu fataliko amna ci ñu bari ño xamanteni ci ay sénégalais bu fekkee euh, nek nga ci situation bo xamanteni tay tey tax na ñu bàyyi la nga mëna circuler ci période couvre-feu bi rek dañ koy def sans aucun problème kenen ko xamanteni mu ngi mu ngi nonu tamit ñu ko arrêté di xol euh, situation bi nga xamanteni ci la nek ba xam euh, peut-être euh, warna mëna a circuler ci moment bi nga xamanteni mom lañu décrété li di couvre-feu bi taximan bobu tamit ci même chose voilà voilà defe naa mungi en règle defe il est en conformité avec euh, li nga xamanteni mom moy euh situation bi situation bu régulière euh, bi nga xamanteni war nañ ci mëna nek pour mëna daw waxtu wi. ñu ngi doon euh, xol un peu par rapport ak disposition yi nga xamanteni gendarme yi jël nañ ko fi au niveau donc euh, de Kermassar, exactement ci rond-point bi nga xamante d'ailleurs euh, Carrefour là euh, da nga gis façon nit bu nek dang fi fiy gis oto yu nek ñu fi jaar etc donc fi mën naa ni mom moy xolu Kermassar donc ñi nga xamanteni ñom ñoy tak takk der yi ñu ngi fi en l'occurrence gendarme yi ak aussi quelques militaires yo xam dañ leen déployer sur le terrain ngir ñu gëna yombal liguey bi ñi nga xamanteni ñom ñoy donc force de l'ordre vraiment bi ñu ñëwee aussi gis nañ fi vraiment ay dispositif yu yu yu doy war ngir mën a amal liggéey bi comme ni mu waree donc duñu def lu dul Cheikh Omar jéem a doxantu tuuti xool euh, ci ruq yi notamment euh, ak militaire yi nga xamante ni ñu ngi leen di seen fële. ça c'est c'est les forces de sécurité sénégalaises donc qui sont euh, déployées sur le terrain pour assurer donc la sécurité en période de couvre-feu. donc Cheikh Omar comme ni ñu ko gisee gis nga. Euh, les euh, militaires qui sont euh, actuellement en alerte par rapport à la situation bi nga le respect de ce couvre-feu qui a été instauré depuis quelques jours par le chef de l'État le chef suprême des, forces armées. Aujourd'hui, on est au niveau de Kermassar. Donc voilà le dispositif que nous avons trouvé sur place euh, qui nous a euh, tellement ébahis à tel point que nous nous sommes euh, vraiment donné le plaisir de prendre quelques images par rapport à ce dispositif. Vous voyez ce véhicule qui vient donc voilà d'être arrêté par les militaires pour essayer de voir euh, exactement euh, quelle est la situation donc, euh, du conducteur. Est-ce qu'il est en phase avec donc, les règles établies par rapport au, donc, au couvre-feu Voilà, donc il est en train de s'expliquer donc, par rapport à la situation. Il s'explique avec, n'est-ce pas, l'homme de tenue qui est en face. Voilà, donc c'est des pièces tantôt, euh, euh, c'est euh, tantôt des, voilà, des explications pour essayer donc de donner donc sa provenance. Actuellement, il faut ñu nous euh, li nga xamanteni tamit euh, mom mo ci gëna am solo mom moy euh, wax ak nit ki nga xamanteni aussi arrêté nañ ko ba xam ngi ci situation bo xamanteni tay permettre nako muy daw heure bi nga xamanteni dañu téré nit ñi di ci nit ñi di ci di ci voilà wax wan ma tamit ñi nga vraiment ces ces hommes là ces hommes de tenue vraiment braves qui sont n'est-ce pas euh, au niveau donc euh, de Kermassar pour assurer euh, la sécurité, pour assurer le respect de ce couvre-feu et de tout ce qui, n'est-ce pas, s'y ajoute. Donc vraiment, c'est une situation qui doit être vraiment divulguée de temps en temps parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de, de, la gestion de la sécurité, c'est quelque chose qui doit être vraiment voilà, apprécié de tous. Parce que la sécurité aussi n'a pas de prix pour un pays. voilà defe naa euh, kaaraange amul njëkk bu ñu demee ba wax ni euh, li nga xamante ni moom mooy euh, couvre-feu bi dañ ko war a respecter war a jox cër ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy les les forces de l'ordre jox leen cër ba pare def le tout pour lépp loo xamante ni aajoo na ci couvre-feu bi rek ñu respecté ko gis nga keneen a ngi noonu ñuy arrêté voilà ñu ngi nuyoo di laamisoo ak euh, ki nga xamanteni mom moy euh, homme de tenue bi wax ak ñom di len lajale en même temps li di seen i euh, ngir ñu feussel fi nga xamanteni ni nañ fa ak fi ñu jëm ak li tax ñuy dox ba waxtu wi ci guddigi voilà du liggé bu yomb deug la wante il faut que ñu de temps en temps ñuy dem di xool ñi nga xamanteni ñom ñoo di tak der yi liggé bi nga xamanteni ñu koy def sur le terrain naka lañ koy défé

voilà mu ngi vérifier ba xam liñ koy wan ci téléphone bi ak euh, li nekk ci passeport bi conforme na ak euh, li nga xamanteni mom modi euh di profil am defe naa euh, ay mbir la yo xamni ni voilà parégul ci vérification bi gis nga mu ngi xolaat aussi passeport yi nga xamanteni euh tamit ñenen yenen yeneen passager yi ci auto bi ñom ñoko ñoko ñoko ñoko yoré voilà vérification bi defe naa métti na trop waaye il faut que <laughs> il faut ñu def ko ndax euh, kuy daw waxtu wi nga xamante ni dañu tere euh, lii nga xamante ni moom moo di couvre-feu euh, intervenir ba mu tax ñu tere circulation ci benn heure bi defe naa faw ñu koy saytu di xool aussi nit ñi fan lañ jëm lan moo tax ñuy dox ba heure bi ba xam am na urgence ou pas